Bokoya Saka di ab d'origine nigérien mi nga xam ne nag euh, mi ngi jiima daan ak ki nga xam ne mooy Rodrigo Goes cim naataable ku man ku ëpp doole ku ëpp ay bit ku ëppalee match ku gën a taxaw physiquement loolee xibaar yi danañ ko ci coppate ndànk waaye dëkkub Aladji Malick TV euh, doon final football ab final nag ci digganteem ASC bokk jom bu jaayeen gone Aladji Malick TV am nañ ndam lu yaatu ca final boobee ci série de pino bi Aladji Malick ngoogu yor ab kubam gars yi bu leen ko ko soxre may leen ko ay kër bu baax a baax ndax dëkk sëb dëkk ñuy def liggéey bu mucc ay dafa neex kontaan naa ci sama waa dëkk euh, fier d'être mbaa leen waa ñu diglu nag euh, bit bi lañ leen di wan bi nga xam ne série penalty bi moo waral mbaa jël ndam li bu ko defee buñ delsiwaatee ñu àggale Malick Sarr àggale li nga xibaar yi gaa àggale xibaar yi gars bit baa ngoogu série penalty dernier tir pour mbaaleen Baye Mbaye l'une des meilleures joueurs de ce moment arbitre bi sifflé na Baye Mbaye le final pour Diane le coup pour Mbaye oh oh c'est L'AIC Dembediak Dembalen qui a remporter son premier trophée de la saison. Et c'est une grande news pour le football mbaaleen waaw. final de Mbaaleen. ñu ngi gagné dañ koy yaan. fii ñoo ko fii ñoo ko conteneur ba wàccaat na fële ca alaaji Malick Sarr doomu ndeyu loo ginnaaw bu ngeen ripañee li nga xam ne mooy conteneur yi mu yoroon ci wàllu mooy gars yi lépp falaxa ngeen ko ndax njaay mu yomb njaay mu original mi nga xam ne gonek Barcelone gi moom lay jaay ci wàllu mooy gars yi en gros ba lépp lu ngeen ca bëgg ci image yi ngeen di gis ma nga noonee conteneur bu yees peq ginnaaw bu ngeen falaxee bi fi nekkoon alaaji Malick Sarr kontaan na ci loolee nga xam ne def ngeen ko waaye nag nee na leen du ngeen ko gën a gore ndax wutiwaat na yeneen conteneur yoo xam ne mooy yees la mooy original am nan Barcelone am Atlético am lii di Real Madrid uh, ba ci Paris Saint-Germain Milan Manchester uh, United Manchester uh, City ba ci Arsenal Atlético Madrid fépp foo xam ne bëgg ngeen fa ci wàllu moyen bu ngeen wootee ci numéro bii di affiché di 76 907 71 80 Malick danañ ko livré bu leen neexee ngeen dem ba ci Sandaga bu ko defee ngeen dem ba àgg ci moom def seeni i commande yu mucc ayib yoo xam ne daanaka da koy livré en temps bu la neexee nga toog fi nga ne bañ a bougé woote dugalal ko wéef mu daal di lay dugalal say moom Malick Sarr moo ginnaaw mbégte moomee ma dund ak yéen jërë ngeen jëf waa Mbaleen Neymar nag mi nga xam ni Rodrigo Gomes nag ma ngay jël ay tontu ginnaaw bu ko euh, kii di Neymar yebbilee tey nag Rodrigo Gomes di ab brésilien ñoom ñaar ñëpp ñu dëkk Brésil nag mu yebbi ay kàddu moom mii di Rodrigo di xam xamle ni kii la nga xam ne mooy Neymar. bokk na ci footballkat yi gën a xarañ ci àdduna wala ngal kàpp bokk na ci footballkat yi gën a xarañ ci Brésil ñi nga ñaan mu dellusiwaat ànd ak ñoom Rodrigo Dio ex e explosif euh, bi nga xam ne dana ko bokk kii di euh, ya Saka d'origine nigérien mais nag mi ngi football ci équipe bu Angleterre euh, ma nga nekk nag fële ca Arsenal li mu dugal ci ay bit bari na lool moom Boka ci natable bi juróom fukk ak juróom-ñeent juróom fukk ak juróom benn passe décisif ñaar téeméeri match ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñaar téeméeri euh, match ak ñaar fukk ak benn ci Rodrigo Goes juróom fukki euh, bit ak juróom passe décisive ya ma nga toll ci ñeent fukki passe décisive ak ñaar kon bu ñu xoolee na table bi yaakaar naa ne fi mu toll nii fii Bukayo Saka xam naa ni techniquement moo xaw a mais moo ëppale ay match nag ndax am na lu toll ci deux cent vingt neuf mu rawee ko lu toll ci juróom ñetti match Euh, rawe ko nag lu toll ci ay bit lu toll ci euh, ñeenti bit séngam passe décisive yi nag la mu ko rawee bari na kon Bukayo Saka yaakaar naa ni gaa yi koy concurrencé mi ngi ci kaw euh, Rodrygo Goes bu baax a baax Etienne Ndeye Ndeye Radji maanaam ngeen jéggal ma ci tur yi ndax xam naa ni fële ca équipe bële di Burundi xam naa ne seen i tur benn sénégalais bu ko mën a prononcé yombul mais Etienne bi moom yomb na mais li ci des moom jéggal leen ma ko di sélectionneur bu Burundi nee na Sénégal. boo jëloon ay kayit teg ko mooy favori waaye nag ci terrain bi danañ wane ni wax dëgg yàlla préparé nan mentalement Sénégal.